jataay bi nag li ko waral yaakaar naa ñëpp xam nañ ko ku seetaan CDD biñ defoon Tivaouane service départementaux yëpp ñu impliqué leen ci boobu ba tey ku ci nekk lu doon sa wàll lépp la ca la nga ca man nanga ko def ki nga xamni nak moy ñun suñu premier magistrat de la commune monsieur Cheikh Sall mo fi yabalon benn délégation mune ni ma su nak Abdou di dem ci sama conseiller soxna la ndjay ak ña nga xam ni fa togal ku melni Sidi Yahya Dia Abdou Khader jarul sax nit ñi di bari ngeen and ak délégation bi dem mune man rek amna lo xamni mang koy sakku dekk ba dafa am ku fa sëriñ bi doylo limi nek nekk xale-xale yépp lepp ci mom la ko tek muy Sidi mohammed Aydara mune nak suma sañon bu ngeen jaaree ci kër soxna Aydara bala ngeen di tambuli seen waxtaan na ngeen ko wo mu fekke lepp ndax mom moy sëriñ bi sëriñ be mom moy lepp bi ci jotaay bi niñ ko gisee yaakaar na fu le porte parole toogee ab taawam toog ne ci suñu wet rakam toog ne mustafa Aydara toog ne moog Ibnu Aydara di rakki imam yaakaar naa jotaay bi moom mat Sidi Yahya nekk ne di proche collaborateur de monsieur le maire moom comme ni mu ko daan waxee rek fii délégation bi mu fi yabal da leen a yabal pour ñu indi seen addiya pour ziyaare ci gàmmu gi nee na gàmmu gi su ko mënoon a yanu def lépp moo koy def mu ni Sidi Mouhamed nag mënu ko fay Sidi ay Aidara ki nga xam ne mooy la coordonnateur du porte parole di xalif mënu ko fay parce que fu waroon a teg tànkam Sidi fu fa wootee ñu ni Sidi Ahmed jaar na fi loolu sotti na nee na kooku ci ñi koy jàppale ci kowinam la bokk mu ni Sidy de bu ñëpp meloon ni moom commune Mewane ca kaw ca kanam rek nee nag ay démarche am yamaleetu ko ci Gouette yëg naa ci village voisin yi nekk foofu yëpp la leen Sidy nammal mu ni loolu mi ngi koy ñaanal yàlla Sidy lépp lu mu mébét ci secteur bi yàlla jàppale ko ci nee na de Sidy marabu la sañu ko wax tekkil sa kaska kasku bu teg fee ne da ko koy wax jéem a xool leen parce que nee na doy na ko conseiller ba mat sëkk mu ni ma remercier leen ma ko su ngeen demee remercier leen ma ko bu baax yàlla yàggal taxawaayam lépp lu mu man ci guet ren bu dewee déwénee yàlla mënal ko lu ëpp loolu looy yal na ko yàlla nangu ca yaakaar naa ni yàlla dina ko nangu bi muy nangu fii gàmmu gi boobu xale bu ndaw la sonnoon lool nar a man mii maa jàpp ci loxoom ni ko sa maam rasulullah bu la ñaanam walloo siidi ca kokko kanam booba ba tey yaakaar naa yokk na ba ko ca loolu ca kanam la jëm monsieur la maire nee na dafa ñëw di ziyaare ñëw fi pour politique lii mu joxe nii duñ ko médiatiser ñëpp di ko dégg mais bu ñu paree ñun dinañ ko xumtoo ci suñ biir wax leen ko ku ko war a dégg dégg na ki di service d'hygiène nee na it wax dëgg yàlla kontaan na ba leen Sidi Mouhamed yabal euh, sollicité moom lam ca man ci ndimbalam it def na ko ba yaakaar naa dëkk bi tey ku ku ci nekk boo tëddoon ci ginnaaw kër gi sax benn insecte du la laal benn moustique du la laal électrification bi extension du adduction d'eau bi nee na na li ci Sidi def Lola yit fu ci nekk yootu na téléphone am ni Sidi Mouhamed moomu de loolu muy namm foofu lu ngeen ci mën a def na ngeen ko jàppale parce que loolu moom moo ko war moo ko waroon a def defatu ko siidi jiitu di def loolu ci siidi sàkku ci lenn lu dul ngërëmu yàlla mu ni nag loolu yal na yokk ba yëg ko nee na daal mi ngi ñaan cey bu mënoon a am siidi moomu bu ci mënoon a am fukk ci gox bi léegi commune Mewane mel ni capital du Sénégal kon nag siidi gàccee ngalaama man je ne le dirai jamais assez Vous êtes une personne modèle, un idole, une fierté pour Gouet. Vraiment, tout le peuple euh, guettois se rejoint à moi pour lui transmettre ses sincères remerciements, ses sincères félicitations. Dis lui souhaiter une très longue vie, une vie synonyme de paix, de prospérité, de santé, etc. Sidi Dal lii nag du lenn pour la première fois ma bokk ci délégation parce que loolu moo ma war parce que kii su woowee insister ni Abdou foo nekk ngaay ma woo kii ni ko waxal ma dama toog ci yàgg ni man waxu sama rakk doyu ma parce que xëy na li ma mën a wax remerciement yi ñu ma santloo Sidi ak ñi jiite gàmmu ga xëy na moom dina am yu mu ci fàtte moo tax ma def demi tour jël Jakarta ñëw wax nag yombul xëy na yiñ ma yóbbante woon yu bari fàtte fàtte naa ko ci mais moom daal nee na jàpp ne mooy guetam nee na nag ab dëkk ñëpp munul bokk ànd ak moom mais moom adversaire politique am ak partisan ñëpp la yemale parce que mooy la magistrat de la commune buy defal guet du pour affaire politique dëkku nee na guet ndeer ndang njaasaan sanc buuna yemalewu koog benn dëkk parce que taalibe la fi tànk taalibe yi la fiy def mu ni bu fi dëj yi amee bu sañoon du yabal délégation mooy ñëw ca récemment yaakaar naa def na ko une enveloppe financière de 200000 la fi distribué sama kër rak mag la jëkkee bi soxnaam gaañoo jaar fii jaar ci yaayu mustapha Aydara mais jaar ci gàdd Chérif kooku nag ñun dañ koy remercier ki nga xam ni lu la wokk xuri ko ku mel loonu doo def lu dul remercier ko ca di it li mu wax nee na ma abdu fii ma nekk dafa am ñu ma remplacer dama ñaan yàlla it keneen remplacer ma nee na pouvoir kenn du ko ñëdd mais bu ma sañoon li ma jot a dig askan wi di day sàkku ci seen barkey maam parce que nee na yéen seenu seenu lor loru barke la ku ngeen tifli mu tooy ku ngeen ñaanal bal ba soqeeku nee na mi ngi sàkku ñaan ci yéen it Sidi yow nee na fa la teg daal moom xam naa ni ba tey xamagoo ko yi dal la di wor ci ay kat enseignant nak mom dafa bari wax fi ne su ma wokul ma noppi damay dem fi ba ba timis sidi dal li la li won mom inshallah rabbi dina tok waxal len ko luma ci faté rek wat len ni mom euh, nul n'est parfait mo adam mo matu ñu ngi len di nuyu di len ziaré de sakku ñaan ci yeen wa suñu nuyu bi tam bu pare serigne bi comme day noppalu mag la xam ngeen ni ko déranger bu avons rek ngeen euh, le maire Cheikh Sall ak équipe nous mais dafa am empêchement de dernière minute ba 16h dañuy am après mu ni dama am empêchement dama leen fa ma sama ma ci bi sama ndimbal kon euh, délégation bi man mi le ak Sen imam ak ak euh, fekk la conseil municipal Abdou xaadir mi Abdou Dia ak Sidi ak ñii ñëpp Chérif yoo xamante ne yàgg na waaw ñun war nañu man bu neexoon sax du ñëw dañ bu ne laal la wala Abdou ñoom ak kii rek ak Abdou Khadir mën nañu représenté fii mais fii la ñu bokk Cheikh moom campagne bi fu ndeel fu koy wax buy yet ak ndànk ay sànc boona ay dëkkam la ñu ay maamam la woon ak seeni maam papaam la woon ak seeni papa kon nag du mujjee puso bi muy réer kon moom itam fa maamam yi tegoon seen tànk rek fa la ko fas yéene teg waaw xam naa ni bu ngeen ñaanee moom seen ñaan moom ñëpp a koy taamu ba bitim réew kon nag yàlla def mu jiite commune bi ngeen ñaanal ko ba mu jiite ko kon bu ngeen xewlee daa war a teew mbaa mu yeble waaw kon nag damay bàyyi imaam Saliou Sène rek mu mu mu complété li ma doon wax. asalaamaaleykum leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaara. di leen batalwaax di leen masawu coono di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii nu jublu di siyaare sëriñ bi bu baax di ñaan yàlla da guddal fanam may ku wér te nuyu na ci turu monsieur le maire Cheikh Diagne Sall comme ni ko Alaaji waxee mu bëggoon ñëw waaye ngànt dab ko mu ni ngeen dem teewal ma fa ci dëkkam ci juróom ci kilifaam wax ko ni ko mu ngi bokk ak yow bés bi ci lépp nag di ko sant ci taxawaay yu démb yi ak yu tey yi xam na ni Guyette gii ba muy wut taxawu nañ ko jàppale ko ba tax xelam dal ak ndànk ak sancu buuna ñoom ñëpp xam nañ ne jàppale nañ ko ba tax xalam dal ci lim doon wut ko yàlla joxe kon dina santaat gërëmaat xam ni mu ngi ci seen wet du tan xam lu mukk yëfu gu yett def na ko ci xolam jàpp na sëriñ bi def ko wayjuram ko kilifaam di sant nag porte parole ci taxawaay yi ci ni nga ko seede sant sharif xew-xew bu am dañu ko fa gis ci taxawaayam mu mat sëkk nag ci taxawaay bu ne fu diine xewlee tamit ndax bi wax ma ne ko fu diine xewlee da ngay gis mu tànn ca mu poojam pek fenn ca ñu ngi koy nuyu baax di ko masawu coono ci taxawaay yi monsieur le maire mu ngi sant sëriñ bu baax di ko gën boppam di ñaan yàlla nag xam na ni sax dëkk bii bu xannaas day wër ci feeteer yi lay wër waaye xannaas du dugg dëkk bi xannaas nag mbërum seytaane la moo xam ni lii yitteem moo di fu baax fu baax rek lay wër fu baax nekk fu yiwu nekk fu ànd nekk fu taxawaay bu rafet nekk mu mu jëm faa dugg waaye xam na ni xànnaas moom du dugg ci dëkk bi ndax nag surtout rasulullah fu ñu nekk xànnaas du fa dugg waaye nag liy feeteer li li wër dëkk bi ngeen ñaanal ñaanal ko yàlla ba xannaas moomu sol tànkam sol tubayam fas yéene yàq yàlla bu mu am doole ñu ngi seedeel leen ni leen amul dara dara dara loo xam ni monsieur maire fonkeel jàppeel jàpp gën na koo jàpp sëriñ bi su bu ko xëyee day gën a yokku ndax am na fi mu ko fi ndax kat ku leen fi ba lu muy am njabootu rasulullahi li ngeen di li kenn ko ne la ngay woote yéen lay wooteel wax nañ ko fii daaw ci gàmmu kooku am na ko wax nit ñi gàmmu ñëpp mën la ñuy dimbali kon bis boobu bu amee lu si monsieur le def xeeb na ko dafa toll ni nag jamono bi metti na xew-xew yi bari moo tax li mu joxe mu joxe ko te di ko xeeb nag mu yebal ñu ni ñu ngeen dem jiitu ji teewal ma fa joxe ma sama cant ci sëriñ bi ak njabootu sëriñ bi ah lim nu joxoon nag comme dañ ñu yabal bu doon moom du ko tudd moom bu ñewon du ko tudd waaye comme ndaw lañu ñu yéen am luñu tek ci suñu loxo bu ñew di wax te nangam sunu jëloon na luma juroom ben fukk fukki junne ko ci loxo bi. ni na ko jënde ndox ci ngir gan ñi xam na ko lool nak musale mer dal mu ngi bessalat pas-pasam bessalat ku le rek gu gëntu yett ak tundu yep yep ngeen xam ni daal fa mu nekkoon démb fa la nekk tey na mu leen jàpp leen tey mu ngi sàkku na ñaan ci commune bi projet yi mu sumb ngir defar ko yàlla àggale ko jàmm ñun ñëpp nu fekk ko li mu yéene gu yett yàlla àggale ko ba ñu xam ni gu yett bokk na ci dëkk yi nga xam ni symbole la ci commune bi billahi min alshaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu ci turu kilifa gi di Chérif Bécaye Haydara ak ay rakkam ak njabootu guyat yëpp ci turu porte parole Chérif Sidi Mouhamed <clears throat> di leen ziyaare di leen ndokkeel di yóbbante nuyoo ak ziyaar ci monsieur le maire Cheikh Sall di ko ñaanal lañ ko doon ñaanal rek te mu di gudd fan gu ànd ak wér ak aaju yu faju zahiran ba batinan ngeen ñëw ci dëkk boo xam ni fii mak ñi fi nekkon te jamononté ak maamam Demba War Sall jamononté ak mamam ma Samba Sall ñoko ko daan tungom daan ko ar daan ko wattu daan ko ñaanal daan ko solal batay, gox bi nga xamni moy commune Mewane keur mas dekk bu ndaw la yaakaar naa ci dëkk yi gën a tuuti ci commune bi ci la bokk waaye boo nee Kër Maas ñëpp xam nañ ko kenn dul ko laajte te loolu lépp la ko andi mooy la ko andi mooy ñi nga xam ne yàlla dogal na sunu borom jox na leen cër ñu féete woon foofa waaye cër ba ñu amoon bàyyi woon nañu xel gu yet ragaloon nañ ko wegoon nañ ko joxoon nañ ko cër benn ci maamam Demba War maamam Baye Baye Massamba Sall sama papa sëñ Abdou Xaala Chérif nettali na ma ne ma bi nga xamante ni bii ni nekk na chef de canton ba yàlla dogal tubaab yi ñëw dindi maanaam garaatam boobu dafa war fasam ñëw fekk maam ibnu shérif fii ci gouye ni ko shérif ibnu mu ne ko naam mooy bàyyi xalifa bi mu ni ko ah, man de la ma nekkoon doonatuma ko mu ni ko ndax lan mu ni ko ah, folle nañ ma ca de sama papa nee na sama maam ibnu shérif ni ni ni ni ba mu yàgg mu siggi ni ko ah loolu day loolu de sàll lu fi jaar la rek ca booba ba ñu ko jëlee dañ koo jox ku ñuy wax maam buuna buuna Jóob ca te Saint-Louis moom lañ ko jox waaye nee na une semaine la am ñu delloowaat ko manto bi kon fii dëkkam la sañ na fee defar sañ na fee indi indi teraanga lépp lu ñu fiy def lu ne rek waré fam la pour mu def ko li mu fi defit ñi ngi ko ci sante di gërem diko ci ñaanal bu baaxa baax wayé nak loolu moko war parce que loolu moko ko fi bayyi ndax ñu nit dañu àndoon ak mom jappalé ko diko xéxlé diko xulolé diko guddil diko kon li bu ko fi bu ko fi defé teranga ji ñun ñi ko doon jappalé sagal nañu waye bu mu fekk na fi ay teranga yo xam xam na ni yii teraanga moom ku ko ko yenoon attanu ko loolu nag ñu ngi koy sante yàlla bu baax suñu ko bëggoon ni ko dégg nga defaral ñu courant bi xëccal ñu ndox mii budget moom ci boppam attanu ko mbaa bëgg dëkk yu bari dinañ ko mere mbaa du tal boppam kon loolu ñun ñu ngi koy sant yàlla ñu ngi ñu ngi wax réew mi ak bitim réew mi rek di leen xamal ni guyett gi ci réew mii dëkk yonent bi la dëkku cheikh Abdul Qadir Jeylaani la du fi jóg sunu maam cheikh Abdul Qadir Jeylaani du jóg ci pénc mi ndax li mu fi am Afrique ba mu daj bu ko doon wër ku ko doon wër dëkk për dëkk cheikh Abdul Qadir Jeylaani amu ko ci benn dëkk dëkk boo xam ni mën nga fee wuññi juróom benn fukki nit yoo xam ne bii ni kenn ku ci nekk cheikh Abdul Qadir Jeylaani la tudd yombul ku ñuy wax Baba Ja Baba Jóob mu ngi dëkk Mbuur di mag ci sunu nijaay Souleymane Diop waa dugg léegi ci kër ga doon nuyoog moom mu présenté ma taawam ma ne ko Cheikh Abdou Khadir ni la tudd xam naa ni mu ne ma wallahi moom la tudd ma ne ko wa kon cër bi mu fi am kenn amu ko fi kon nag dëkk la bu mat a bàyyi xel bu mat a wekk bu mat a respecté ni muy defaree noonu la yàqe ak defaram ñoom du ñu tàllal loxo ni ko ni ko rabbana defaral ñu waaye yàqal du ñu tàllal loxo ni ko rabbana yàqal ñu kon ñu bàyyi xel dëkk bi bu baax xam ni def ci dëkk bi du nguur a wareef la fi ay sëti yonent bi ñoo fi nekk sallallahu alayhi wa ànd ak seen ngor ànd ak seen jom ànd ak seen dignité di gàddu seen gopp di dem seen tool ci tool yi di liggéey di ñaan képp ku ñu àndal kum ku ñu mës a àndal rek ngay ngay wut ak nguur rek sunu borom def na nguur googu nga am ko kon ñu ngi koy ñaanal sunu borom defal ko tawféex ak taysiir di bég bu baax a baax ci li mu defal li mu defal euh, maanaam euh, teraanga ji mu indi ci dëkk bi ndax dëkk bi euh, dëkkam la mu neex ñu dëkkam la mu naqari ñu dëkkam la parce que moo yilif kilif commune bi ba pare nag wax dëgg yàlla eh, ay maamam daan fi sosi keroog yaayam moom yaayu Cheikh Sall wax na ma ko nee ma sa maam Ibnu bu ma saana wàcce fasam dégg nga ba ñu ñàddal ko man maa koy jox ndox yaayu Cheikh Sall nee na man maay may sama sa maam Ibnu Chérif ndox kon loolu lu mat a sàmm la lu mat a ormal la ah dama doon ubbil porte parole eh, rek wax dëgg yàlla doon ko introduiral et eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wasalaatu wasalaam ala rasulillah eh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kàddu nuyoo gi mooy nuyoo njabootu xaadi bu naam Sidi Chérif. nuyoo boobu mooy nuyoo xalifa bi Chérif Bécaye Al Quran tey kii ñu feggool muy sunu mag di taawam ku gis eh, taawu boroom kër gi mi ngi mel ni gis nga boroom kër gi waaye Chérif As mi ngi nii toog di rakku maanaam taawu kër gi waaye Chérif Moulay mi ngi nii toog ñii njabootu sëriñ bi lañ fekk fi yeneen njabootu sëriñ bi ku ci mel ni ki doon jël kàddu léegi di Chérif Ibn Bil Moghdad ku ci mel ni shérif Moustapha Aydara ak shérif Abdoul Khadr te ñu bokk liggéey bi nga xamante ne bii ni moom la ñu sëriñ bi dénk waaye fekk fi tamit yeneen njaboot ki jël kàddu léegi di Abdou Dia euh, su jëloon sunu kàddu mën na yóbbaale kàddoom ku mel ni sax Sidi Yaxya kazalika wala sax sunu jarbaat di sunu tante di la conseillère euh, madame le maire parce que les conseil c'est des maires muy soxna Lalla Ndiaye kon dafa mel ni rek tey une famille ñoo fi daje tey monsieur le maire ku mu yónni ak ku mu mun a doon dañ koy xoolee jëmmi rek le maire parce que tey moom moo nekk maire commune bi loolu yàlla dogal tant que mandat bi jeexul moom mooy maire commune bi tey wax naa ko ko ci bu ñu dajee maire yi ci li ñu toog muy institution bi ñu toog muy mairie yi mu nek démembrement état askan bi lañ fa togal dundono bo xamante ne bii ni tey dañ ko donné ci sen manam bay mu nek ndono liñ wax héritage wala mu nek lo xamante ne bii ni tey dañ leen ko fal parce que seen compétence moo tax ci walu xam-xam ñu fal leen ko wala tay dañ leen ko jox ci walu décret def fa talal loxoom askan bi wax ne tey man maa dox seen diggante ak état parce que mairie ñu bëri dañu yaakaar état la mais mairie démembrement état la suñu waxee démembrement état mooy benn banqaas la ci nguur gi tey askan boobu tey kon maire yi war a nekk maanaam li ñuy wax ci maanaam nuñ ko mën a gën a odde ba kàddu gi gën a rafet mooy ci gàttan ñëpp mën ko dégg rek moo mu war a nekk ki nga xamante ne bi ne tey moom mooy nekkal askan bi ci seeni soxla maanaam saa bu askan bi soxlaa rek maire bi moo war a taxaw mu jaral ko lu ne mu jaral ko woon ginnaaw njabootam jaral ko woon ginnaawam maanaam këram woon ginnaaw ay soxlaam parce que loolu moom mooy engagement bi dox diggante mairie ak li nga xam ne bii moom mooy askan bi. donc loolu tey wax dëgg yàlla dëkk bii ñu nekk eh, muy Guet Chérif mun naa wax ne su fekkoon téeméer la juróom-ñeent fukk yëpp teggil nañ ko maire bi te loolu yàlla rek lañ ci jël seede ñoom ñi nekk ak moom ci biir terrain bi ku ci mel ni suñu tànt bi xam na loolu ndax wax dëgg yàlla xaaruñu ko ci extension courant wax na ko xaaruñu ko ci extension ndox wax na ko xaaruñu ko ci gàmm gi wax na ko xaaruñu ko ci leneen ak leneen loolu yëpp aussi suñ ko defee dañ koy def ba pare mu mel ni moom lañ koy defal. parce que tey am na ci loo xamante ne bii ni su fekkoon ñun dañ ko ci xaar mun naa am ni moom dina am yéene ji ak bëgg def. waaye mun naa am du am doole def ko comme ni ko Chérif Ibn waxee ci mun naa am sunu mbir dina sooxe wala sunu mbir dina tardé loolu moo tax lu ci bëri tey xaaruñu ko ci waaye loolu yëpp tey suñu ko defee du tere aussi dañ koy jox cëram jox ko wàccuwaayam jox ko gëddam parce que tey moom mooy maire commune bi ñun amuñu ak moom benn problème wax naa ko guddi wax naa ko bëccëg waaye nag ci suñu dëkku maam bii nga xamante ne bi ni tey. sëriñ bi dafa jël liggéey bi dénk ma ko man ak sama mag yi ma àndal loolu mënuñu ci xaar kenn parce que lu tax mënuñu ci xaar kenn mooy lu ñu gëm yàlla wax ko yonente bi salaa sallam muy ay alquran bi yàlla wax ne inna allaha laa yuxayru ma bi qawmin xatta yuxayru ma bi anfusihim maanaam duma ma soppi seen mbir lu dul yéen yéen bëgg seen mbir soppeeku ngeen dox jëm ci loolu ñun ñoo bëgg ñun guyet soppeeku guyet am beneen xar kanam guyet am beneen tolluwaay guyet am beneen maanaam jëmuwaay loolu moo tax xaaral ñu ci monsieur le maire mais ñàkk xaar monsieur le maire du dañ ko ñàkk jox ciram wala waayam dañu jàpp ne rek tey moom lañ koy defal kon loolu aussi dafa mat a leeral ci bopp monsieur le maire mu leer aussi ci ñi muy àndal leer tamit ci ñi ko jege leer tamit ci ñi nga xamante ne bi ne tey dañ koy maanaam digal parce que digal ak dugal du benn. Mhm. tey amaana nit dina la jigee nga jàpp ne daf lay digal fekk ne da lay dugal ñun lii rek ci loolu la ñu nekk. Guèye Chérif daal ci ndigalu xalifa bi ci njaboot gi. ñun ñi ngi ci yoon bi ñu nekk di ñaan yàlla suñu borom egg leen ñu monsieur le maire teraanga fi def te ñu yàgg ko ànd muy lu ci mel ni bi ñuy def CRD bi Abdou di wax na ko engagement yi mu jëloon ci service d'hygiène matale na ko ba mat sëkk bisu tey bii tamit teraanga yu mu fi indi xataa su fekkoon ndox lañ ciy jënd teraanga la parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na teraanga mi ngi commencé ci xar kanam ca tey li tax nit ki toog xalaat la li tax nit ki tey jël délégation bu toll ni yónnee la kon ñun duñ ko xeebal teraanga bi yàlla xam na ko ndax teraanga bii tey su ñëwul woon tamit bis bi fu mu war a yegg dina fi yegg su neexee yàlla ndax li indi bis bi ci weer yi ba fii ñu toll nga xamante ne bi ni 24 heures moo ci des

mun nañ wax ne dañ koy tuddee ŋàññ wala xas état mais ñun fii ñu toll nii amuñu benn problème boo xam ne binte dañ koy joytu gis nañ gëdd bi état bi jox dëkk bi jamono yi ci ginnaaw premier ministre recevoir nañu reva délégation famille bi ca jaar ko ci ma Samba jaar ko ci ma demb parce que dañoo bokk ci réew mi duñu ay Burkina Faso duñu ay Guinéen ay doomu réew mi lañ bokk ci nguur gi di taxaw di laaj suñu wàll ci nguur gi waaye loolu yëpp tey ci yar ak teggeen lañ koy laaj kon sant nañ bu baax délégation bi mu fi yebal di jégalu bu baax tamit ci kàddu yi teraanga yi rafetlu nañ ko yàlla xam na ko yonent bi bu yemoon ci lu mu def service d'hygiène doyloo nañ ko ndax gëm nañ ni li des ci bis bi suñu borom bi yombalal nañ ko ba bu subaa lépp luñ ci war a def dinañ ko def kon tey dollee lii da cay dolli rek rafetlu nañ ko nungu nañ ko sëriñ Pape yow mii magu sëriñ bi ñu ngi la doomu sëriñ bi ñu ngi la koy seedeel di seedeel ne ñun amuñu benn problème ak monsieur le maire Cheikh ñu ngi koy ñaanal bonne continuation ñun suñu vision en tant que Chérif Sidi Mohamed ci Gouyate Chérif sunu vision ci commune Mewane sunu vision bu ko yàlla jubalee ñun dañuy ut ay partenaires financiers jëlee leen ci àll bi ñu ñëw di financer commune Amna ay communes yu ñu koy defal tey ci commune yi mun naa ci tuddu du ci tuddu parce que c'est la laa mais ñima nekkal xam nañ ko damay togg ak ay maire amna ay communes yi am forage yalla ak sama jëmm ma leen doxal bañ am forage amna ay communes yi am ay yenn financement ma ko dox. mais dama am relation boobu ak maire yooyu maire yooyu di ñuy déglu ñu di ko déglu kon ñun tamit loolu ñu mënal commune yooyu war nañ ko mënal commune bii parce que am nañu ay partenaire maa ngi leen denc Maroc li ci kanam mi ngi ñëw parce que lu lu ñëwagul jarul wax ndax cat mën na ci dugg mais ñooñu xajuñu ci commune Mewane waaye nag bala ñu ko def commune Méouane dañu profité defar dëkk bi ba pare ndax suñu defaree dëkk bi maire bi lañ ko defal loolu moo tax vraiment ñuy njëkkee rek ci dëkk bi mais tey lii ñuy def nii ci dëkk bi war nañ ko def dëkk bi comme na nga ko waxee ñaata dëkk ñoo def délégation ñëw ci ñun di tawat courant ñaata dëkk ñoo ñëw ci ñun di tawat ndox ci loolu yëpp suñ ko defee ba noppi dañ koy jox ci compte maire parce que tey moom mooy maire commune bi kon daal ci guddal ci gàtt ñu loolu lañ ci amoon lu ñu wax kontaan nañ ci délégation bi kontaan nañ ci teraanga yi ba fu daaw ci discours cérémonie bi am na ñu interprété kàddu yi ñu ne mais ñi ngi seede ci yàlla li ñu waxoon daaw mun nañ ko waxaat ren mooy wax naa ci cérémonie bi ni amul maire bu fi mos a toog li jiitu monsieur le maire Cheikh Sall ci ci magistère Cheikh Sall lii fi Cheikh Sall def nga def ko. loolu nag ah ku dem yóbbu sa beneen xëy na déggin wala sa beneen waxin xëy na loolu yow la mais man daal ci gàttan encore une fois madame la conseillère parce que conseiller bi dafa am cër. te jamono bi jamono bu naqaree waxee la parce que da ngay wax lu tax ñu indi télé bi maa ko indi pour mu ñëw ñu jël seede parce que ñu bëri dañu yaakaar ñun dañu am ak Cheikh Sall monsieur maire problème amuñu problème mais dañ koo xaarul ci suñu dëkku maam bi lii rek moo ci nekk bu fekkee nag loolu mooy problème fii ba téeméeri at même bu fi beneen maire ñëwee ñun duñ ko fi xaar parce que doomu réew mi lañ fi lañ juddoo am na lu ñu xam ci réew mi am nañ ay partenaires yu nekk suñu ginnaaw di ñu gunge pour ñu defal suñu dëkk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ne leneen te lépp aw na yoon daal macha allah kon Cheikh daal yal na ko yàlla uh, guddal fanam te fi mu bëgg a jëmee commune bi yal na ko fa yàlla yeggale.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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ودعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اللهم أمن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا صحيح المعاملة بيننا وبينك وأمتنا على السنة والجماعة وصدق توكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بالعفو في دارين وحسبنا الله وكفى وسلم وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه صلاة تفتح لنا أبواب خير وتغلق عنا أبواب الشر وتعزير أنت ربنا المولى نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا ولا تقبل ما شاء الله اللهم صل على لا إله إلا الله la ilaha illa